xam-xam bu jëm ci wàllu faj tey nag damay ñëw ci juróom-ñaari am ci bi dibéer altine talaata àllarba alxames ajuma olof moo koy woyee noonu tubaab di ko woyee dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi arab di ko woyee yowmul ahad yowmul isnayni yowmul salasa yi yowmul arbua yi yowmul jumaati yowmul sabti moo ànd juróom-ñaari tur yàlla yi faradu jabaaru sakuru sawaabu sahiru xabiru zakiyu mag ñi di ko tënk ci faj sa saxasa muy xaatimu sayidna suleymaan alayhi salaam moo ànd ak juróom-ñaari turi rawaan yi muy rawq yaa ilu jabra yaa ilu sams yaa ilu miika yaa ilu sarf yaa ilu xan yaa ilu ak kashf yaa ilu moo ànd ak juróom-ñaari turi muy jinne mashab jinne muratu jinne ahmar jinne barxaan jinne samros jinne abyadu ak jinne memuna moo ànd ak juróom biddiw yi wala nga ne étoile wala nga tabia arab mooy wax tabia olof mooy wax biddiw tubaab mooy wax étoile juróom-ñaar yi nag soo ko booleeg a ba ja da ha wa za ha ta ka la ma na sa a fa da xa ra sha ta sha xa sha muy 28 xaraf yi nekk ci alxuraan karim bu doomu aadama bi ñëwee ci ngay xam kii jafe-jafeem ndax cat la wala rab la wala ñàkk a génne sarax la wala maanaam dañ ko liggéey yaa ko mën a xamee juróom-ñaar yooyu ci la ñuy istixaar su ko defee tey damay leeral ci tawati émorite jàngoro yi kajoor feebar la boo xam si ki nekk ci yow ni nga koy xamee da ngay gis ni boo lekkee du gaaw sa biir bi jooy naan gurr ngay toog ñaari fan ñett doo mën dem toilette di seere février euh, maanaam hémorroïde nekk na feebar boo xam si ñi muy dal moo ñi xam si maanaam dañuy liggéey liggéeyu téyeer ak ñi liggéey liggéeyu oto ak ñi xam si maanaam dañuy liggéey liggéeyu toogaay bi yàgg ñoom lay ñoom lay dal dafa am hémorroïde bi nekk ci biir ak ak bi nekk ci biti. hémorroïde bi nekk ci biti doomu aadama bi fi muy demee fii demee toilette mooy def benn bul benn taab taab googu dëtt moo ci nekk ak deret ak ndox. dëtt ju dee ak deret ju dee ak ndox mu dee faw mu génn am na ñu koy opéré waaye opéré bi gënu ci baaxut am nañ saafara garab goo xam ne si kun ko jox lu mu yàgg-yàgg si yow six jours juróom benn fan mu deñ abal la te bu dañee dootul ñëwaat te garab gi dafay ànd ak alxuraan karim te yàlla moo ne maa farat naa fi kitaab mi shayin téere bàyyiwul dara lépp mu ngi ci biir alxuraan karim ma ñëw ci benn feebar leeral ko mi feebaru gémmiñ guy xeeñ gémmiñ guy am xet tubaab bi ko wooyee mauvaise ki mu nekk ci li koy indi bokk na ci feebar jabet boo ko amee jabet type 1 ak jabet type koo xam ne ki da nga amee feebar res mooy foie day indi xeetu gémmin feebaru ulcère day indi xeetu feebaru seere day indi xeetu gémmin feebaru mburaan day indi xeetu gémmin mburaan mooy suñ muy nàcc di génnee deret dafay indi xeetu gémmin koo xam ne kii da ngaa amee bañ bënn ngay def loo lekk mu dugg ci bañ bënn ba lekk googu di fa dugg di fa des dafay indi xeetu gémmin moom bi dañ ko saafara garab gi ñu ci yor dafay ànd ak alxuraan karim kim dal lu mu yàgg-yàgg ci yow mu la joxee garab gi 11 jours fukki fan benn mu deñ te bu deñee dootul ñëwaat képp koo xam ne ki yaa ngi nekk diwaanu bitim réew bëgg a jox ak ñun numéro yooyu ci kanam écran bi maanaam ci ngay envoyé vocal whatsapp vocal bi mooy gë mooy gën a yéwén mooy gën a jàppandal bu dee woote bi léeg-léeg mën ngaa woote déggante bi du neex da ngay envoyé vocal ñu tontu la bo envoyé vocal nag lu mu yàgg daañu la tontu soo ko defee kon. même boo envoyé vocal fi gis na nekkuma ci ligne bi bàyyi fa vocal ba soo nekkee ci ligne bi dana la tontu képp koo xam ne kii soxla nga garab foo mën nekk ci bitim réew foo mën nekk ci cinq continents yi foo mën a nekk ci Europe Asie États-Unis Afrique foo mën nekk ci dëkk boo mën nekk garab yi mën nañ la ko envoyé ba nga jot ci lépp nag maanaam ngir bëgg jàppale doomu aadama yi ndax alxuraan karim moo ne maa farat naa fi kitaab mi shay téere bàyyiwul dara lépp mi ngi ci biir alxuraan karim lépp mi ngi biir alxuraan karim yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadis ne addu'a wa ni ñaan mooy nganaayal julit julit bi nganaayam mooy ñaan kon ñaan lu am doole la lu am njëriñ la soo ko defee kon ma leeral tuuti ci wàllu cat li ñuy wooyee cat cat dafa am catu bët ak catu làmmiñ am na ñooñu seen làmmiñ baaxut lu ñu wax mu yàqu am na ñooñu seen bët baaxut dafa am tooke lu ñu xool mu yàqu ñaari façon cat yooyu mu am cat nag ki mu nekk ci yow loo mu tas loo waaye dig doo ci gaaw jot cat ku mu nekk ci yow da ngay faral di yeewu bëgg a génn sa kër waaye doo mën a génn kat cat ku mu nekk ci yow di yaakaar dara ba def sa xel dem ngir wut loola waaye boo demee da ngay fekk sa cat ku mu nekk ci danay waral maanaam fépp fu sa njariñ nekk bu la ko waxee doo sawar da nga naan da dem rek fekk foofa sa sa njariñ ma nga fa moom it dañ ciy liggéey gàllaaju ceeb boo leen gisee jaar bi ma takk muy jaar jaar bii bu ndaw bi borom bi jaar bi boo xoolee dafay dindi cat dañ la koy liggéeyal liggéeyal la ndomba gi ndomba gi juróom-ñaari bopp la am juróom-ñaari gaw nga takk liggéeyal la sangat gi dañ lay liggéeyal jaaro looy takk jaar booy takk sala sa loxo càmmoñ ak ndomba ak juróom-ñaari gaw ba noppi liggéeyal la sangat goo sangoo juróom-ñaari fan bokkut ak xaatim bii xaatim bii mooy xaatimu Souleymane mooy bi am tableau bi kii mooy xaatimu Seydina Souleymane alayhi salaam bi am tableau bi mooy xaatimu Souleymane pour ñi nga xam si ne ñoo bëgg am bayre ñi bëgg am kaaraange ñi bëgg a mucc ñoom la ak ñi bëgg a siiw mooy xaatimu Souleymane mooy mooy xaatim bi nga xam si maanaam dañ ko bind ci ci kaw jaare bi mu mel ni lu carré bu dee bi ma takk sama loxo ndeyjoor bàgg bi moom it pour yëkkatiku la ak daraja ku bëgg yëkkatiku ak ku bëgg am daraja ak koo xam ne kii da nga bëgg loola waaye def lu bon du agsi ak koo xam ne kii danga ngaa bëgg musiba fu mu war a xewee doo ko fekkee ku ko takk doo dee ci accident doo doo génn àdduna ci accident doo génn àdduna ci ndox ku ko takk doo génn àdduna ci safara soo ko defee kon mi ngi nii yëpp dañ koy liggéey képp ku soxla numéro yooyu nekk ci kanam écran bi boo ñu wooyee daañu fexe ba nga jot ci Sëñ Fallu Mbàkke daan wax ni ku takkul dara doo tekk dara diw moo fi dégg dafa diwoo dara suuru suuf bu sutantee dañ ko jal ko fekkoon kon mbir yi faawu sangu am ci yoon ak takk ak naan doomu bi nag boo ñu woowee téléphone faaw ñu defal la xool ba xam yow dañ laa a jox loo a takk wala loo war sangoo wala loo suroo wala loo war a naan wala ñu xool sarawaan ba xam ndax yow dañ lay jox looy takk ak looy sangoo ak looy ak looy suroo parce que léeg-léeg nga gis koo xam ne faaw nga jox ko lu bi takk jaaro ci loxo bi ba def jox ko ndombo jox ko sangat am na ñooñ sangat kese nga leen di jox seen biir baax am na ñooñ faaw nga jox leen jox seen biir baax am na ñooñ faaw nga wax leen ay tur yàlla ñu di ko sikar di ko werd pour seen biir mën baax su ko defee kon maanaam mboolem koo xam ne kii soxla nga ñu numéro yi mi ngi noonu ci kanam écran bi mën ngaa woote ci 76 bu dee ku nekk Sénégal 76 926 08 27 76 926 08 27 wala nga woote ci 76 369 27 27 76 369 vingt 27 27 ñi nekk bitim réew nañ envoyé vocal ci numéro yi ku ci envoyé vocal daañu la tontu ku nekk ci biir réew mi Sénégal boo wootee di nga mën a jot am nañ oto ku nekk Sénégal mbuur wala kawlax Thiès Touba wala nga nekkee Ndar wala nga nekkee fii ci Ndakaaru foo ma nekk nekk am nañ oto boo mënta ñëw say garab wala say ñaan mën nañ la ko indil ba fi nga nekk su ko defee kon saraxu at mi ñu ngi dugg ci atum 2022 atum 2021 mi ngi jeex sarax bi maanaam sondeel la sondeel képp ku ko man na nga wut benn sondeel bu ñaar fukk nga jàng ci juróom-ñaari faatax du kitaab ba mu jeex nga sarax ko maanaam jigéen loolu mooy saraxu at mi mu mel ne waxtu wi ja euh, mat sëkk ñi ngi tàggatoo ci beneen émission leeral xam-xam ak suñu Mor Talla tawféex jërë ngeen jëf